mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñëpp ak fu ñu mën a nekk ci adduna bi te di ñu topp ci seen seen MKTV di télévision bu Grande Mosquée de Touba muy Moukhaddamatoul Khidma TV. di nuyu tamit euh, mboolem euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñoo nekk ci GMT TV ak ñi nga xam ne ñoo koy topp ci bouquet yi ak fu ñu mën a nekk. di leen ndokkeel tamit ci bis yu tedd yi muy weeru tedd wii ñu nekk di weeru muharram te tàmbali di nekk ci jeexital bi di dëgmal sunu weeru bopp bi muy asafarul xayr yi di ñaan sunu borom tabaraka taala mu yàggal fi Cheikh Mahamadul Muntaxa te wéral ko ak mbooleem jullit yëpp mbokk yi kon e, ñëwaat nañ ci seen émission bu am solo boobu nga xam ne e, bu yitteel jullit yi la muy émission gàggantiku ni ñu leen koy présenté toujours di leen ko wax muy am ñaari yoon ci weer bu nekk ñu koy ànd ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy indi ay siise wala ay bind yu aju ci diine ci loo xam ne day jariñ jullit bi ci àddinaam di ko jariñ tamit ci ëllëgam euh, muy doon ay laaj yi ak ay tontu maanaam bind yu ñuy gàgganti ko euh, niñ ko baaxoo defee tey ji ñëwaat nañu fii ci Daaru Salaam daam ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane nga xam ne miin neen miin ngeen ko ci ci scène bi muy ànd ak ñun ci eh, gàggantiku yu am solo yi jurit yi di ci jariñu di mufti di imam di ab jàngalekat di conférencier aussi su ko defee kon eh, suñu émission tey suñu gàggantiku tey ay laaj la yoo xam ne rot na fi ci bokki julit yi ñu di ko laaj incha allah xam naa ne bala ñoo jeexal wala ñuy continuer ci siise yi nga xam ne moo nekk ci suñ kanam danañ joxe benn numéro boo xam ne képp koo xam ne am nga laaj bu la yitteel ci sa diine ak lu mën a doon soo ko ci yónnee incha allah eh, borom xam-xam yi danañ ko tontu incha allah kon su ko defee sëriñ bi dañ lay jox kàddu gi nga nuyoo ñu jubli ci liggéey bi aouzu billahi min ashaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi topp di leen ndokkeel di leen sargal di ñaan sunu boo defal ñu tawfiq dafa ñu tey siir. nu ko waxee dina ndokkeel al umma al islami bépp tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ci at mu yeesum jullit ñu nekk ñaan yàlla mu nekk atum barke nekk atum xéewal nekk atum mucc waaye nekk atum njub jërëjëf sëriñ Abdou Lahad. Euh, jërëjëf sëriñ bi euh, ñu ngi lay sant bu baax ci nuyoo bu rafet boobu su ko defee kon suñu laaj bu njëkk rek euh, mbokk bi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci jullit bi ci jullit bi mu lekk aw ñam woo xam ne maanaam mu dem ci xew ay xarit yi ñu dut ay jullit moo xam ay ay dañoo nekk ci beneen diine ndax dana dagan ci ci jullit boobu mu mu dem ci xew woowu di lekk ñam woo xam ne du ñamu du bokkut ak ñam yi jullit yi war a jëfandikoo. waaw jërëjëf sëñ Abdul Ahad bu fekkee ne xëy na ahlu kitaab la ci jublu mhm. mooy ay chrétien lañu wala ay juif mhm. lekku seenu ñam sun alquran moo ñu ko daganal wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum lu ci dul li nga xam ne dafa araam ci noonu mu ne mbaam yàpp mbaam wala yu mel noonu nga xam ne dafa leer ne dafa araam ci lislaam waaye yëpp ñam ñu gaaral te nekkul lu ñu araamal ci noonu sañ nañ ko lekk duñ waxe rek ne ñam wi baaxut ndax ci ñoom la jóge bu fekkee nag ñoom ñoo la ko indil amaa fekkee da nga koy def di fa teew nag moom itam bu dee xew woo xam ne du xew diine ba tey sañ nga faa teew ku ci am ngente ku ci am ceet am dëj yooyu jullit mën naa jëfalante ñoom ci yooyu ndax mbiri àdduna la li ñuy tere daal mooy nga teew ci seeni xew xew yi diine ndax loolu dëgërël seen diine la te diine jooju ci lislaam ak neen la ak neen nag jullit sañu ko dëgëral kon ñu la yónnee ñam te du ñam yi la lislaam waxoon dafa xaraam bu yàggoon nga xam ne ci lislaam sax araam na ci yow uh-huh. ab chrétien jox la ko ak juif ñooy am sañ nga ko lekk bay wujji woote it bu dul woote diine ci ñoom sañ nga ko wujji mu la wooyee ndax ay dëgëral seen diine la yooyu moom jullit du ca teew jullit du ca bokk du ci jàppalante ak ñoom it nag loolu mooy lislaam bu dee nag doon gi doon ay nit ñu jëflante en tant que ay nit moom lislaam terewul seen i xew yi àdduna seen i xew yi social yi xam yooyu moom kenn terewul jëflante ñoom day dugg ci biir laa yanhaakumu llaahu ani lladiina lam yuqaatilukum fi ddiin wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim loolu ko ak seen ngente yooyu waaw day tere jàppale leen ci ñoom ci seen diine hmm. ndax diine jooju lislaam jàppewu ko diine lislaam mooy diine fu yàlla hmm. kon di jullit nag du am di jàpp leen loo xam ne ci lislaam ak neen hmm. ci biir loolu na mbokk mu doon laaj sax fan yee ma dafa am benn xaritam bu ne ko dafa bëgg mu gunge ko ngir mu ànd ak moom dem ci barabu yaayam ngir yóbbu ay fleur ndax dagan na ci jullit bi mu def loolu wala den xam nga dem ci armeel moom yëpp ay armeel ci boppam rek dem ci terewuñ ko ndax jullit bu fa demee day waaru hmm. bu dee ñum sañ ñaanal mu ñaanal leen bu dee armeel jullit de moom day day ñaan ñaanal leen yàlla waaye buñ dul ay jullit sañu leen a ñaanal hmm. waaye dem fa ngir waaru dara nekku ci hmm. dem fa ngir waaru jum dara nekku fa waaye teg ay fëloor nag loolu it amul njariñ ndax yàq alal la ndax amuloon njariñ ki ñu koy tegal te bu dee alal ju am xiima eh, di jàppalanteeg loo xam ne yàq la it nag Uh-huh. lislaam gërëm kon dem ci armeel jëm bi dem ci armeel gi moom armeel yi mën a doon romb fa jële fa waar teeru wuñ ko waaye nag jàppalante ci loo xam ne daal lislaam gërëmu ko uh-huh. xeetu jàppalante bu mën a doon moom lislaam da koy tere uh-huh. bu dee seen takk yi ci moom aada ci mbiri ci mbiri social yi la bokk jullit bi sañ naa dugg bu fekkee ne aajo fa dugal waaye xanaa lu ñuy tar ne fa <coughs> bu fa ko laay demee naan fa ñool wala jaxasoo bu am loolu bu doon ay jullit sax lañ koy tere bépp mbooloo moo xam ne boo fa demee daf lu ñuy tere wala gis fa lu ñuy te waroo koo gis dañu la koy tere kon bu ko jullit dafay ak ku dul ci yooyu nag ndajeem diggante ay nit la hmm. jërëjëf sëriñ bi laaj bi leer na yi ci aju euh, mbokk mi dafay laaj mu ne ndax dara dagan ci ci waajur wi wi nga xam ne euh, am ndax am na àq ci waajur wi nga xam ne dafa jëloon doomam nga tënk yóbbu ko ci barab boo xam ne dafa doon tarbiyewu dafa doon tarbiyewu daal maanaa maanaa joxe ko léegi nag ndax ndax am na àq ci bu fekkee ne bëgg na ko faa jël jële ngir yóbbu ko ngir mu liggéeyi ngir di ko dimbale ci kër gi ndax waajur wi dana dagan mu def loolu saga moom da ko joxe woon diir bu yàgg mu nekk ci sëriñ bi nga xam ne da koy ndax dana sañ rek jekki dem jële ko fa te sëriñ bi noppiwut ci moom ngir yóbbu ko mu liggéey xam nga jëmmi li ñuy tuddi tarbiya ay darajaat la hmm. am na loo xam ne fardu ayn la ci jàmm moom dañ koo war a bàyyi ba mu def ko ci moom lim war a xam ak te war koo def buñ ko ci doqee ba mat nga xam ne moom li faratay jëmu mat na ah. lu la ci des ay farudu kifaaya la ah. euh, mën na wéy di ko def ngir bu ëllëgee mën cee wutu ñeneen hmm. waaye bu amee nag seneen soxla suuf gën a far hmm. mën na ko dagg ngir loolu li bëgg wax rek mooy bu fekkee ne moom fañ ko joxee daa toll ci ñi di ko jàngal di ko yar ay faratay jëm moom hmm. loolu kenn suñu ko dagg ndax bu ñëwee ci kër gi tid bàyyi bàyyi wut xel du ko amal njëriñ ndax day bàyyi ndigal yàlla ngir def ndigalam te loolu dëgganul waaye su noppee ci yooyu nag te mu gis ne moom dong la am ci koo jàppale jàppale ko fa day nekk farata jëmm ci moom day gën a yay dem di ci ay fardul kifaaya hmm. kon faaw ñu xàmmee moom fan la toll ci ñooñu ndax moom soxna si wax loolu am na keneen ku ko mën a wóotu ku mën a wóotu doom ja ci moom boobaa na ko bàyyi mu sàkku xam-xam sàkku ak njub ndax boo liggéey yu lay doon bu fekkee nag moom dong la am bu farata aynu jë farata jëmm ja matee na koo jël wala war na koo jël ngir mu dimbali ko ndax moo war a taxaw moom itam su boobaa bu fekkee moom dong mu fa sës hmm. jërëjëf sëriñ bi euh, kii dafay laaj lan moo taqale diggante sangaayul janaaba ak cangaayul ajjuma loolu lay laaj. bu fekkee daa jublu wax ni ko defee dafa ñu wenn la moom. Ah. waaye nag bokkuñuy atte farata la. Ah, xam naa ne atte yi la ci gën a jublu. lee moom sunna la. Hmm. ajjuma sangu ko sunna la. ci ku nar a julli ji. Hmm. bëgg nañ bala nga dem nga sangu. cangaay loo xam ne julli gee ko moom moo tax ñu jokkale ko moom. Hmm. yoo xam ne ku xëy sangu. wala nga nelaw ginnaaw boo sangu nelaw yu xóot xóot wala nga lekk fi da ngay bàngu cangaay li ndax cangaay li ngir julli ji àjjuma li loolu nag sunna la moom ci ab jullit buy julli ji mu ne cangaayal ba nag farata la képp koo xam ne sabab janaa janaaba nekk na ci kawam du mën a jaamu yàlla julli wala tawaaf wala laal ab kaamil te sanguut kon farata la ci moom mu def ko kon ñaari ati yi bokk waaye jëm ñi niñ ko defee moom nen ne anam gi ñu ko defee genn anam gi la waaye nag kee day doon farata ci moom bu ko defut day am te bu jullee julli ko du baax bu doon tawaaf du baax bu mënta laal alxuraan ki ci des nag dañ koo sopp ci moom bu ko defut dox moom bàkkaar waaye nag bàyyi na aw yóbbu loolu mooy cangaayul ajjuma naka noonu cangaayul ayit it noonu la mel ñoo bokk nuñ koy defee waaye li ñu wute mooy itam cangaayul ayit moom ngir bis moom dañ koy sopp ci jullit bi bisu bisu ayit mu doonte julli jiwut ba tax dañu bëgg gone yeeg jigéen ña ñëpp ñi nga xam ne duñ julli ji sax bëgg ñu sangu boobu bu dee ajjuma nag kii julli ji lañ ko sant ki nga xam ne julli ajjuma waru ko santuñ ko mu sangu cangaayul ajuma loolu hmm. jokk giñ ko ciy jokk ndax maanaa su fekkee ne ku mel ne suñ jili mi maanaa nga xam ne sangu ba noppi naan ak caafo loolu dana yàq sangu bi wala déet xam nga lekk yu noonu war moom <laughs> yooyu moom mën nañ ko jégale hmm. waaw naan ay soow ak yu noonu waan yooyu doonte soow nag aw ñoom la hmm. aw ñoom la nag euh, tiim daal dank sang bu noppi dank dara daal di jëlee sit ñu bàyyi xel ko wax ne sang añ añ sax nag lu mel ne añ yooyu bisu ajuma du sunna nga añ te julli ba ñëw hmm. saxaaba yoo xam ne daawuñu ko def lu dul dañoo julli ba ñëw kon li sunna it ci wàllu boobu mooy ñu dem julli ji euh, bu ñu seetloo na ci ñaare euh, am na ñoo xam ne bu bu bu ñu xewloo ba ba ba nañ ko bëggee rek bu demee ci jumaa ji it benn duñ teewlu ba boog teewlu du am hmm. boo julli ji ba ñëw nag euh, feex door a dundal sunna sunna yi sunna yi mbokk yi ci des hmm. mhm. jërëjëf sëriñ bi laaj boobu leer na kii dafay laaj lan mooy atteb Euh, yëkkati ay loxo ci kàbbaru armal yëkkati nga yëkkati say loxo loolu lu ñu sopp la ci masab Malik nga yëkkati ko mu tolloog say mbagg wala mu tolloog say nopp loolu nag ci kàbbaru armal képp lañ ko sopp ci masab bi loolu mooy al mashhur fil masab nga xam ne saa booy tàmbali julli da ngay yëkkati say loxo ba mu tolloog say mbagg wala say say say nopp jëmmi kàbbar gi nag mooy allahu akbar ji mooy farata kooku rukk na la ci julli gi ko deful julli gi baaxul waaye yëkkati loxo euh, boobu leer na kii mu ne eh, ndax dana daggan ci jullit bi mu sukkandiku ci attey réewam ci baña eh, ci ci ci attey réewam ci miraas miraasum tribunal walis mu dem ci ñu miraasal ko ci miraas yi nga xam ne ñoom suñ mbàkke danañ koy def waaye mu gën a taamu miraasum tribunal xam nga ab jullit moom jullit la dañ koo sant mu tënk ko ci yàllaate uh-huh. yàlla moo santaane bu jullit faatoo ñan ñooy doon uh-huh. yonent yàlla Muhammad alayhi salaam waxoon na ne miraas kenn doy ci yàlla uh-huh. du yeneen du malaaka mu ko jege moo séddaleel boo xam miraas wax kan moo kan mooy doon ak lan lay doon danaa ko faral di wax it lu ci bari tegu cim xel da xam ni fi yàlla la waaye sumun ak rubox yooyu noonu lu tax sumun lu tax rubox kii di am lii kenn xamul lu tax yàlla wax ko ci dëgg-dëgg diw ak diw ñooy doon diw duñ doon loolu suñu borom nga xam ne jàmm bi day xam ne yàllaa ko bëggee nii alal ji yàllaa ko moom teewoon ko ci loxoy diw diw faatu na nee na nañ ko jox ñii ci nii ci anam gi noonu la loolu nag ab julit du am sañ-sañu kon di ko yóbbu feneen foo xam ne noonu yàlla wax ne nañ ko defee noonu deesu ko defee noonu bu fekkee nag tribunal ba ñoom dañuy miraas ni lislaam santane wax nañ ma ne eh, ku dem tribunal boo bëggee hmm. ñu miraasal la ni lislaam santaane ni charia santaane bañ a jël yoon wi ci des su su yaay day mel daal kër gi fee dem mooy taamu hmm. kon dem fa ñu ñu miraasal la ni ko lislaam santaane boo jàppee ne moo gën a jub sama xel sañ na ko waaye na nekk ni ko lislaam nga xam ne bu doon dem ci imaam ak sëriñ it noonu la koy defee amma bu fekkee ne boo demee ca foofa dañ lay miiras ci anam goo xam dafa wuuteeg ni charia wax doon loo koo xam ne warut doon wala ñu jox ko loo xam ne bokkut ak lislaam wax loolu nag dagal dagante ñu koy def dagante kiñ jox ko kiñ jox ndax alal diñ loo jox masalan ñu war laa jox dara jox lu ko ëpp la ëpp moom ko ndax li yàlla moo koy joxe te nee na joxuloo ko yow kon keneen ku la ko jox du tax mu dagan ci yow moo tax loolu lu am solo ma te bàyyi xel hmm. yëfi yàlla la alal yàlla jum la dénk nit ki mu ko déggoon fàtt na mu yàlla moom moo wax ne nañ ko jox diw diw ku ci ne mu wax lañ koy jox kon ku ko def lu bokkute noonu rek daaj tooñ waaw gis ñoo xam ne daf mel ne ñoom léeg dañuy dañuy dañuy xam ne buñ demee tribunal niñ koy séddalee day tolloo dangay ki naan jigéen gu goo xam ne ñu ci bëri jigéen ñi am na ci ñoo xam ne dañuy dañ naan lu tax góor di ëppale te te loolu dafay mel ne ñoom dañuy génne seen bopp ci tënk gi ñu tënku day am yeneen xalaat yu ñu am ci njàng mu soreek yu deme noonu loolu da koy gis ci ci télévision yi lu bari. waaw xam nga nit moom daa war a xam lim doon. Uh-huh. li dañuy wax ne aljahlu ummu radail uh-huh. lu bon yëpp réere réere seen ndey. ñaare lu dal nit rek ak réer moo ko teg fi ni umpule moo tax ñu naan lu tax góor ñaa jigéen benn. Uh-huh. maanaam sëñ sëñ booy xool miras. man ngaa jàpp ne jigéen ëppale góor. jigéen yàlla la ko warmaal ba amul fenn ci àdduna fu mu war a yore boppam. xanaa adduna ju yàqu ak dundin wu jàng ak nit ñu wàcc yoon mm-hmm. mooy am waaye kon jigéen di wërtu woon tumuraanke kon mm-hmm. ndax bu juddoo am na ko koor yor ñu way bu dee ba mu borom kër borom kër ma ko yor bu amee doom doom yi am doom yaa bu ñëpp amut société a yor mën na jël wàllam denc ba pare ñëw day yor day noonu sax demee léeg-léeg misaal am nit ki faatu bàyyi ay doom yu góor yu jigéen ñoom noonu ne fa góor góoree jël fukk jigéen jël juróom waaye jigéen ji day jur juróom denc ba noppi ñu ne góor gi sa sa fukk yi yaa ci yor jigéen yor ci ay moroom yor ci ñeneen yor ci soxna kon bu ñu déggoon lislaam li moo xam ne lislaam rek mooy maandu gi waaw ndax war ma dañ ko jox moom dañ ko war loolu ak dundam ba noppi rek teewut ñu ne ko nañ du tee nag lu fi am nag jox sa jot sa wàll wàll woowu ni ma ko wax la yëf yàlla la maanaam lu tax góor di la yàlla moom ñu bind andi fii ci kaw suuf boo xam ne kenn ci yëgu hmm. di ñu fi bàyyi saa ku neexee mu jëlee ñu fi moo wax ne bu ñuy meras nañ ko doxal loolu ku mu neexut wala nga jàpp ne jubut moom wax ko sa borom bi la bind mm. bi ko euh, euh, mbokk bi dafay laaj mu ndax am na benn waxtu wala benn jamono boo xam ne daal dana dagan ci jigéen ki mu mu njaaloo sëriñ Abdou Lahad njaaloo bokk na ci bàkkaar yi gën a ñaaw yi gën a bon melokaanu ñaaw yene borom bi tudd na ko mm. faaxisha la munkar ñaaw lu ne la amul fu muy dagane ci àdduna li li ñuy wax duñ ko tudd dagan maanaam loro nit bu loroo te loru nag nit ñi dañ koy wax waaye yombut mooy dañuy wax ne jigéen foo xam ne bu fa njaaloon du am bakkaar loolu la ñuy wax mooy taxul njaalo dagante am na foo xam ne bu fa àggee bu njaalo du am bakkaar ndax dañ ko forcé njaalo loo mooy jigéen joo xam ne àgg na ci xiif bu lekku dee gis kenn nit koo xam ne moo fa yor lu ma lekk moom kenn moo ko fa yor mu ñëw di ko sàkku di leb wala muy ñaan wala muy yelwaan waa ji lànk ne ko loolu du am mooy yow yow door laa gisul keneen amul feneen fu mën a jaar ful foofu kooku la ñu wax ne bu njaaloo kooku ngir dund kooku dañ ko forcé atte kuñ forcé la lu ci am bàkkaar góor gi ko daf mooy am bàkkaar euh. waaye loolu nag boo koy seet seen bilaat fii ci jamono daanaka mënta nit ki foo xam ne kenn fay ne yor fa dimbal daanaka yombul saa bu kii lànkee boo génnee yelwaan tàllal sa loxo gis ko la dimbale waaye fa ñu àgg na nga xam ne kenn ku mën a dimbalee amut ku dul kenn kii la fi gis te kooku ci sart boobu la ko nangoo dimbale <coughs> ne mooy moom yàlla dara ko jox li mu koy jox su bu mooy moom yàlla du am bàkkaar foofu don la téere yi jàngale di wax ne foofu la jigéen di dafe bàkkaar boobu te du ci am bàkkaar moom ki ki ko ko def loo mooy gàddu bàkkaar bi ndax mi ngi mel ne ku ñu forcé naan loo ko sàngara foofu kooku dañ ko forcé njaalo loo ngir mu xet li bàkkaaram nag mu nangoo jëf loolu ngir mujj waaye jàpp naa ne ci àdduna toll nañ foo xam ne foo xam ne kenn nit ñi gis mën a dimbale ci condition yooyu eh, yaakaar naa dund gën a du fa gaaw xam nga loolu jamono ji fi ne léeg rek nga déglu reportage yoo xam ne da ngay dégg jigéen ñi di lay lu mel noonu man kat euh, sama njaboot gi ma yor faw ma jaay sama bopp ngir dund te ay jullit lañu doon kon loolu lislaam mayu leen ko. mayu leen ko lu tey ñu yalwaani. lislaam day tere laaj lu dul lor bu fekkee amul mënta liggéey bi ci des ñu koy wax ñaare ñu ak seen doole joo xam ne mën nañoo fóot. Mhm. mën nañoo togg mën nañoo bale mën nañoo daan seen doole ci biir kër yi. bu ñu ba sax wéeréer yi nga xam ne amuñ amuñ doole mën daan doole buntu bi yàlla yàlla tëjuwul te dëkk julli lay nit ñi dañuy saraxe ngir yàlla bu demoon nag bu foo xam ne yàlla amu fa kenn du fa saraxe benn liggéey bu man ci àdduna amu ko amul kenn ku fay dimbulee loolu jàpp ma ne am na ci dëkk àdduna yi sañ sañ ci dëkk yi nga xam ne duñ julli sax nit ki bu tàllalee loo xam ne damaa xiif balaa ngoon mu am lu lekk jërëjëf sëñ bi loolu loolu leer na euh, mbokk mi dafay laaj mu ne Eh, ndax dana dagan ci dana war jullit bi mu mu mu mu fay weer woo xam ne eh, dafa dafa wéradi woon ba faat ci lu mat juróom-benni at loo xam ne jege na juróom-benni at. ci koor waaw ci koor. ndax dana ko mën a fay dana war ci moom mu fay ko. waaw xam nga nit ki bu wéradi woon ba mënut a woor moom saa yu wéree day fay koor lu mu yàgg-yàgg. Hmm. ci mos a bu Malik lu addeem bari bari da koy fay waaye nag. nam ko mane la koy fay nam ko mane duñ ko ne tey tey nga tegale ko woor lépp waaye nag dina xam ne bor la bu ne ci loosam mu ko mën fay mu fay kon saa bu ngànt amee mën a woor nañ ko ngànt li bu ngànt li jeexee ndigal la ñëwaat war jërëjëf euh, kii dafay laaj mu ne ndax dafa daggan ci soldaar bi mu dog kooram ci weeru koor ngir ne dafay défendre am réewam euh, bu fekkee ne soldat bi daal tukki de tukki boo xam ne sañis na cee wàññi julli kooku mën naa dog ngir tukki bi waaye jëmmi jëmmi jëmmi doon soldaar dong nag doyut ngir dog koor bu fekkee daa nekk ci xeex bu fekkee ci xeex la nekk it am tukki xanaa mu àgg xeex di xeex bu àgg foo xam ne ba àgg foo xam ne fi mu nii euh, bu bu dogut mën na caa mën na caa loru maanaa xam nga nit ki duñ ko wax ne ko tey bul xëy bul xëy woor ndax damay xeex waaye bu dee ba ci digg ba nag loor dab ko sañ naa dog hmm. masalan kenn du wax ne diw sàngam tey day tàng ba nga xam ne nii masalan bu météo waxoon ne tey daal dana tàng tàngoor waxoon ne ku woorit bu àggi digg bu cëg danga nga bu kenn woor tey hmm. du tey nit ñi dañuy buñ demee ba nara lor lor nag sañ dog ndax loolu wax lu foog rek la mën naa nekk ndaw ñu nekk suñ ci àggee nag door sañ a kon ki nga xam ne day xeex bu dee nag day défendre aw ci dëgg ndax léeg-léeg sama réew tooñ nag nga di ko défendre loolu dëgg de bu dee da ngay sam réew dañ koo tooñ nga di ko défendre ci dëgg moom loolu ci buntu jihaad yi bokk bokk su ko defee bu fekkee tukki la tukki ba doy na bu tukki nag dem ba loru ci dog mooy tax nga sañ dog ndax nit mën naa wóor ba noppi di xeex ndax pas-pas la pas-pas la ak yitte ju kawe la léeg-léeg sax koor googu gën laa yokk doole joo xam ne ci sa biir ba wóorutoon doo ko am waaye nag boo demee ba ak gis ne nag ndax bu dul dara it nit mën naa toog fi woor ba digg bëccëg rek maroy jàpp ko ba mu nar a xëm sañ naa dog waa day dog ndax loolu ngànt la su su jàllee mu fay waaye nag du xëy na tey dama war a xam bu bëccëgee kon du mu woor tey tey woor kay ba ba ngànt li ko bu dawee mu dog hmm. foofu sax dinaa fi dolli benn laaj ndax ñoo xaw a niroo muy footballeur bi nga xam ne dafa nekk ci contrat léeg-léeg ñu nekk ci match football match boo xam ne dafa am importance euh, entraîneur bi ne ko da ngay dog sa koor gi ngir nga mën a joxe dëgg-dëgg est-ce que ci jullit bi loolu dina dagan ci moom jullit sañul loolu sañul laaj yàllaa ko woorloo kon ab entraîneur wóor ko dogloo su wooroon nag ba ci biir match bi àgg foo xam ne bu wéyee loru loru suba sañaa dog mbir mi di mbirum match bi aw yoon moom doomu aadama ji bu naree loru ci koor gi lañ ko saña dogloo waaye du ne bu wooree match bi niñ ko bëggee doon demee hmm. bi jëlee seen nag daf loolu métier sax nag mën naa tey hmm. Euh, am po nga def ko métier. Mhm. Euh, lu moo a bàyyi xel la yàlla bindu nit ñi ngir foofu seen blaat mhm. te yooyu nag boo ko seetlu ba seetlu ko dëgg-dëgg njëriñam leerut njëriñam leerut de mhm. donte coow li bari na ci ay jamono dañ doon wax Brésil mooy réew mi dàq moo ko dàq dàq ndóof ci àdduna jamono yooyu mu mooy mooy akbaru dawlatin madina fil aalam mu ëppoon i bor ci àdduna kon li ñuy wax sax jàpp ne day yëkkati ay koom-koom yëpp ay ay naxaate la maanaam ab dorog bu ñu dorogee ndaw ñi la gën ci ci lu jëmale réew mi kanam réew yi kanam mm-hmm. maanaam fi ngay def moom daanaka nit ñi moom moom liñ gën a yittewoo mooy seen doon doon doon professionnel boo xam ne day fay milliard moom waaye liñ bàyyi xel mooy milliards yooyu kan moo ci jariñ mm-hmm. fii daanaka ñoo ngi gis ñooñu noonu ndofkat yooyu ci dëgg-dëgg daanaka seen réew doon jariñoo mm-hmm. ci ëpp ci leen lay bari yi ci ëpp ko li ci ëpp di sat xeetu xeer xeetu xeetu xeetu liggéey yi yoo xam ne ñoom ñooñu ñu koy ñi koy ñi koy saytoo ko def yëpp li cëpp ñoom la dellusiwaat ah. man nga gis ñu alal alal juru jeex lay fay ko waaye du fay fenn daanaka ñu néew ci ñoom ñooy gis ñu amal njëriñ seen i njaboot wala seen i bokk ci ñooñu te yooyu pas-pas bu dëgër koy waral la yeneen ah. waaye daal du ma wax ne lu araam la waaye nañ bàyyi xel ne yàlla bindul nit ñi ngir fo daf ko métier moom di fo rek guddeeg bëccëg bi ci des ni métier la moo xam ne gudd gudd guddut ah. guddut lool ñaari nit ñi fa ñuy retraité ci métier moomu fu gaaw lay ki léeg-léeg fi mu toll ci diggu dooleel lañ koy wax ne ko yow léegi bu dee pomme yi mënatoo léegi fekkee loolu dong la jàngoon léegi lu muy def. Hmm. moo ñuy bëree yëpp boo gisee la léeg agresseur yu bari yi loolu rek ko hmm. nit koo xam ne dool yëpp aw yaramu boppam ci la doon jéem a ba ba ba am li bëgg dox tuuti ñu ne ko loolu jeexal nga fa. Hmm. mu war a continuer di dund te amul bu mu dundee loolu mën na jaaxal. ma gisoon naa benn imam bu doon joxe benn exemple ci benn joueur boo xam ne. Euh, maanaa ni mu ni mu doxale nga xam ne euh, jël na waa dëkkam wutal leen ay salaire tabax hôpital tabax tabax ki mel ne ba laa gis mu def ci hmm. maanaa di ci di ci joxe exemple waaw xam nga fu mel noonu kenn dafa siirawul yooyu hmm. ndax am pola ay caaxaan la ëpp ci nit ñi lañ jee jëlee foofu lay dawar xëy na bu gisee koo xam ne dafa génn ci xaayira boobu hmm. moom ma ngi ca poma waaye nag ma ngi ci jéem a jariñu di ci jariñe day doon ràññi ko waaye tekki wun na ni dàggan taxul mu nekk lu gën de jërëjëf sëriñ bi euh, kii dafay laaj mu ne ndax nit ki dana am bàkkaar ci euh, sketch yi théâtre yi reelu yi nga xam ne dafa bëri nii nga di ko seetaan yow mi koy seetaan maanaa di ci di ci di ci ree ndax loolu da dana la jural bàkkaar xam nga bàkkaar moom daf lu ñuy tere moo koy waral hmm. bu fekkee ne la muy seetaan du lu araam hmm. du lu bon woote ko it ay farataam hmm. dugalu ko ci barab boo xam ne waru faa nekk loolu am pola yàq xëy na yàq sa waxtoo ngi ci nag maanaam duñu wax ne la araam na da ko war a bàyyi waaye nag bàyyi ko moo gën ci yow ndax bu ko bàyyi woon jariñu leneen bi ci sit nag yu bari moom fal yadxaku qalilan wal yabku kathiran moo doon digal dëkk dara moom ak def ko métier. Mm. solo mm-hmm. ñi koy liggéeyee nag ñoom. mooy ah, moom amul solo ndax ba tey liggéey am po la. Mm-hmm. liggéey po yëpp nag moom ñoo bokkaate bu neex yàlla bindu nit ñi ngir fo. Mm-hmm. jërëjëf sëriñ bi euh, kii dafay laaj ne ndax dana wér euh, ci bépp sëy boo xam ne maanaa jeeg bi xam nga xëy na lim dafa dégg ñu ne jeeg mën naa maye boppam rek mu ne ndax dana wér ci jeeg bi ki sëy ba ñëw maye boppam ci lu dul mu am euh, kilifa. ci mazhab Malik bi ñu nekk de Sëñ Lahad jigéen du fi maye boppam ak lu mën a xew jéego jànqoo ak màgg ba teg màggat ab sëy tey loolu yore salaam a ko wax laa nikaaha illa bi wali wali yi mënta ñàkk ci sëy Sëñ ak ku mën a doon jigéen du maye boppam même moom jigéen ji bu amoon kum jilif bu ko bëggee mayeelu day wut góor gu ko mayel kon yiliful boppam yiliful keneen ci dëgg-dëgg ci wàllu boobu mm. faw day am ko ku bu dee mag la na moo xam nag ay doom maaleex nañ ba doom yaay kilifaam mm-hmm. wala ay sëtam bu ñu fi mm-hmm. nekkut baayam ay mbokkam ñooñu lañ ko toppee mm-hmm. ñu ñoo bu amut ñooñu yëpp nag sañ naa dem ci woon mooy maye ko wala mu dem ci jàkka ji jullit yi fa nekk dajale maye ko wala du maye boppam jërëjëf sëriñ bi dafa mel ne waxtu wi eh, dab nañu eh, li ñu cërale woon ci waxtu xanaa ñu jox la kàddu gi nga tàggoo jërëjëf sëriñ bi xanaa dellu di gërëm mbokk yi ñu doon rek di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp mm. Euh, barkeel liggéey bi. dellu deen ndokkal yéen itam ndax liggéey bi amul solo la jàppalante jullit nii ci seen diine euh, doomu aadama amul lu ëpp diine kon kuy fexe ba sa diine mën a jàpp yaa ngi koy dimbale. yàlla na yàlla boole ñu dimbale. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Mbacké Abdourahmane euh, jërëjëf it mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan ci seen seen MKTV Moukhaddamatoul Khidma TV. ci émission bu bi nga xam ne dañ koy ànd ak yéen weer wu jot muy émission gàggantiku muy laaj yoo xam ne dafay daf ñuy labiré ci suñu diine ak euh, luy dal tamit suñu ëllëg tey jii ñu ñëwoon fii ci Daaru Salaam Ndaam ci kër sëriñ Serigne Mbacke Abdourahmane ngir euh, doon fi defee émission bi ñu ngi gërëm bu baax a baax tamit Serigne Abdoul Khadir ak euh, Serigne lu Sey ñi nga xam ne ñoo la ñu àndaloon képp koo xam ne da ngaa soxla ab laaj tamit soo ko yónnee ci 77 91 98 euh, ci numéro whatsapp euh, danañ la mën a tontu ci laaj bi ci émission yi di ñëw kon mbokk yi ñu ngi leen di dig daje ci suñ beneen jataay di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam